Alaji Fallu doomi Bamba yaa foor faj doktoor ku le gëm du am toor yaa di sun ku le gëm du am toor allah ji fal ku la gën du am toor yaa di sun dinaamu agam bay soxna ami seex baax ku la gëm yàddi sun dina sun dina moom. ñun ku la gëm du am toor. yàddi sun dina moom. ya di ku lëgëm du du am toor ya di sunu dinaamo Allah tool yaddi sun dinaamo yaddi sun dinaamo allah ji fallu doomi bamba yaa foor faj nu yaadi doktoor ku le gëm du am toor yaddi sun dinaamo bamba yaa foor allah ji fallu waaw waaw ku le gëm du am toor yaddi sun dinaamo allah ji fallu ku le gëm du am toor yaddi sun dinaamo gam du am toor ya di sun dinaamo dinaamo ku le gam du am toor ya di sun dinaamo gam du am toor ya di sun dinaamo baru lan waaru galas baru lan waaro lan waaru galas sëriñ Fallu looy géeju xeewal baru lan waaru galas baru lan baaru lan waaru lan lan waaru galas baaru lan waaru faral xat Musa way wi tayam fi Musa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ma noppi ne say ndam xajul ci xer taas te jébbal fi sëriñ Fallu Mbàkke aw taas ba noo baal la nu juumoon bi diw saful weer sëriñ Fadilu mooy weer waleen di jox leer alil fadili mislan fala taqiso imaran bi jawadin fala raiso na seere ni fekk jànguleen siin ba sëriñ fadilu laay def sëriñ tuuba na seere ni fekk jànguleen siin ba siin ba sëriñ Fadilu laay def borom laajal lu la neex ku Seex Bamba di baayam lu ko neex laaj sëriñ Fadilu yanjal ku la neex ku Seex Bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanuk pal dangay door xaañ ni mbàkk

yow siyaare nga Makka siyaare Tuuba su yónneen ba ni ñokket nga bég su booba ba ngay aj ña fa teewoon waroon nañuy raam te jébbal la kur rusiyan yoroon di saw jaam di dabbay katana mar aban wasahla ndewa makkat adaanan la nuy si layla adiyatuka mimman la saaro fatuuba lahumo bahdama jaara fada il yësëriñ fadiluy ramow amul cam su ko ci yoonul islam

Bamba daa xarey baax la Seex Fàdilu Mbàkke ay xaraate ay baax du tee wàcc saw askan te dem Mbàkke mbaa Tuuba paluk saay rek kurwa du say galan du tee tekki say galan te tuubi ngir Yàlla sëriñ bamba moom tuuba kajoor ak bawal siin saalum ak fuuta ak jolof balay sa kajoor sumil nan la seenum sappo daagul sëriñ Touba. kaddu yi mën naa doon benn lépp dugg ci say kaddu xam ne liggéey bi yaatu na ñu delloowaat ñu cër bi rek waaye li tax ñu delloo ñu ko it dañ ko defal sët yëpp rek ndax damay wax ci seen kaddu waaye maa ngi jéggalu sax kàdd yu baax di sant yàlla bu baax a baax di julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba waaye di sant Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne lépp mooma euh, di sant it sunu sëriñ bi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy alaaji bu Mbàkke Falilu di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal sëriñ Mor Gueye moom Cheikh Mamadou Fadal eh, lépp loo xam ne defal nañ ko ko ci lu baax muy alxuraan di xasida di salaatu ala nabi di lixlaas yàlla na ko ci yàlla jotale ba mu yëg ni fa mu tëdd ak njabootam kat ñu ngi koy taxaw ginnaawam ndax li ci ëpp solo ci bis bi mooy ñaanal ko wax dëgg yàlla bu ko fa nekk tey dafay puukarewu wane ne moom de ak njabootam fàttewuñu ko kon loolu lañ koy bàyyi xel bu baax bu bés bi ñëwatee eh, jàmm ji bëri na lool yàlla na ko yàlla yokk waaye nañ leen gën a farataal ñaan yi képp ku mënta jàng kaamil alxuraan da mën a wax salaatu salaatu ala nabi goo man wala nga mën a xulu eh, lixlaas lu mu bon bon ku ne mokkal na ko nga def ci lim bu bëree bëri yónnee ko ko ndax moom day sëriñ bi def na ci moom loo xam ne képp ku ko defal lu baax aw sànni la woy dal rek day ñëwaat ci sa kaw man de loolu man jarbu naa ko ay yoon yoon ndax man de saa yu ma demee ca barabam ba saa yu ma fa jugee rek dana am loo xam ne dama ko yëgaat ndax daana moo xam ne ma man de soxlawu ma ak seex ndax li suñ suñ fal def ci man daa doy sëkk te yaakaar naa li yàlla li ko suñ fal defal kawe na ndax fu tuddeew turam rek dañ lay xoolaat la ko ko may mooy pas-pas ak liggéey bu rëy ndax man mii xayram mii seere la ci man sëñ bi du ma wooyee mukk galas Mor Gueye rek la may wooyee ndax nee na Mor Gueye rek laa lay xoolee du bu duggee ci kër gi rek danaan Mor Gueye Mor Gueye nga ne ndax wax fi mu jaar ak moom ak liñ sëq loolu moom am Mor Gueye mi yaakaar naa am na bis wax na ko ci lu baree bari maa ngi toog kon sëriñ bi fàttiwut seen diggante ñoom ñaar yàlla sunu borom dolli ay xéwal sëñ Mor dool li ko ay leer fa mu tëdd tey jii mu yëg ne ak njabootam kat ñu ngi koy fàttaliku ndax mu puuku réewu ca ñam nekkal ci barke moom Mamadou Fadal kon la mu waxoon ne sama tey ju ne mooy daq sama démb waaye ñoo ngi ñaan sunu borom defal ko barke bi nga xam ne moom lañ koy ñaanal bis bu bis bu set rek yàlla mu di ko puuku réew fa mu nekk ci barke Cheikh Mamadou Fadal sëriñam ba maa ngi sant sëriñ Alaaj Géey mi nga xam ne moo ko fi wutu ñaan suñu borom dëgëral ko kattanal ko di siyaare di sant it di nuyu sëriñ Seexuna Géey mi nga xam ne moom moo topp ci ginnaawam bu ñu tuddee ñaar ñooñu rek tudd sëriñ Modou Gueye waaye da leen yóbbaale waaye duñ mën a ñàkk tudd sëriñ seex ndax ak Cheikh Mamadou Lamine Baara ndax ñoom kat euh, maanaam ay ay ndaw lañ waaye dafa am daraja bu bu ñu nekkee ci kër gi ndax seen waajur day doomi Cheikh Mamadou Fadal te alaaji Mor ku ko xamoon xam ne moom léppam sëñ Fall la ñoom itam ñuy ay nijaay yu baax di ñoo xam ne wax dëgg yàlla kenn gënu leen ku ñu ci gis rek ak koo ci gis ba ci ñi gën a ndaw da koy def comme na sa bopp te loolu mën na leen cee bañ a fekk kon sëriñ Alhaaji Gueye ñu ngi leen ñaanal yan yan bu weef lool di ko ñaanal sëriñ Cheikhouna di leen ñaanal sëriñ Mor Gueye lépp li ngeen di wut yéen ak seen rak yàlla ñu ko yàlla jàppandal noonu lañ koy ñaanalee sunu yaay soxna Soro Gueye ak soxna Say Gueye ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi soxna moom yi bu ñu tuddee soxna moom yi rek day soxnaa ji mbenn day yóbbaale ñu ci des waaye dañuy wàcc soog soxna wa daaru ndax ñu ma ko tudd rek dafay am loo xam ne yàlla moo ko def ndax yéen da ngeen ni deret ci kër gi waaye deret ci Cheikh du Fadal ngeen kon sunub sag ngeen kon ñu ngi leen ñaanal sunu borom dafa leen kàttan wéral leen bu nu jógee foofu rek ci la ñuy jëm ci ñi nga xam ne mooy njaboot gi ñi nga xam ne ñooy soxna yi njabo sunu nijaay yi bu nu kam tàmbalee ci sunu yumpaañ soxna Olimata muy soxna Alima Gueye bu ñu tàmbalee ci moom rek wàcc ci soxna Olimata Sarr daana ak soxna Ndate Fall dana yóbbaale ñëpp loolu li ci jublu rek mooy dañoo bëgg a wax na yéen ñëpp bu ñu sañoon dañuy tudd seen tur waaye ñun day wax dëgg yàlla amuñ dañuy sant yàlla bu baax ndax yéen yéen sunu nijaay yi dama koy wax ci ni ma koy sant li ma koy waxee nag sama xol sedd ci ne laa koy waxale sët yëpp ñu ngi sant yàlla baax ci yéen wax di yàlla am nañ mbégte ci yéen lool euh, tuutu lu leen suñu lenn lu ñàkk yéen a ngi ceeg ñun ñu ngi leen ñaanal xam ne jamono moo xat lool rek ba xat lool maa ngi leen di ñaanal baax di siyaare sëñ Lamine ndax sëñ Lamine moom mooy sunu kilifa ndax loolu mooy li nga xam ne moom la suñu borom def tey loolu mu nangu ko lool euh, lépp lu xew ci kër alaaji Moor da koy yanu da koy ànd ak njaboot gi ba mu ba mu jeex takk kon Cheikh Mamadou Lamine ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëral ko sàmm ko te ko maa ngi leen di sas nag yéen sët yi maa ngi bëgg bu baax ngeen déglu ma bu baax lii may wax ndax daaw daaw am na lu ma leen waxoon waaye ren sax am na doxin wuñ ci dox waaye dama bëgg ñu gën ko yokk loolu moom ci loxol sëñ Ablaye Gueye laa koy teg ak ñi mu ko àndal dama bëgg bu déwénee ñu ne nag wii kat sët yee ko jënd te loolu yàlla xëñuñu ko kat war nañ ko man buñ ko jiimee li ko li tax ñu koy man nag mooy su réunion yi tàmbalee damaa bëggoon bu réunion yi tàmbalee rek sëñ Ablaye nga daal jël carnet boo xam ne yow danga nga ciy bind sët yëpp sët bu ci nekk ñu xool la mu war a mën a joxe ñu ñu ñu góorgóorlu ndax kat wax dëgg yàlla yàlla suñu borom seetaanuñu kon liñ am nañ koy delloo sëñ Mor ndax sëñ moor li ma ko wax lépp lu waay def ci moom suñu borom dala ko daal di fay ndax lépp lu waay def ci moom rek sëñ Fall moo tax nga def moom kon bu ñaan yàlla ñu ne nag bii kat séddee ko jënd wala lii nag lii sëdi am kat mën naa jënd aw nag te loolu bu ñu ko jiimee rek man ko kon maa ngi wax ne suñu laay géey ak ak ak soxna Ndeye Sylla yéen loolu da ngeen ci def ab liggéey ànd ko ak seen rakk yi ak kilifa yëpp maa ngi jégalu bu baax a baax ndax su ma sañoon wax ji dana gën a jub dana gën a kawe waaye maa ngi jégalu bu baax di leen ñaanal sunu borom defal ñu tawfeex waaye sëñ Alaaji Mor Guèye daal li may wax rek fa mu tëdd yàlla na yéeg ne ak njabootam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla na ko fa puugari woo ci barke Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ñun nag dañoo mënewul wax waaye am nañu yéene ñun nag li ñuy def mooy ñaanal leen yàlla defal leen barke ndax kat barke lépp ci la xaj yàlla leen ko yàlla defal sëñ Mor itam wax di yàlla lam doon wax ne sama képp ku bokk ci man wax na ko ba tàyyi may dégg képp ku bokk ci man boo góor lu mu tuut tuut suñu borom dana la dimbalee wax dëgg yàlla loolu ku ci nekk ci ñun yaa ngi ciy gis sa bopp kon buñ ko xeeb nañu góor bu baax te xam ne yàlla kat boole nañoo maam ju baax lool yéen ñi nga xam ne seeni waajur la dangeen xam ne yàlla kat boole na la waajur bu baax lool ndax ku ci nekk ah ba ngay judd suñu borom moo moo moo def ab dogalam rek boole la ak moom kon nag loolu ak sant la ndax kilifa googu tudd ci dëkk bi man sëñ Sidi Massa Fadim siyaare ji ko moom sëñ Abdou Lahat booba laa fa mas a dem ba ma ràggee mu ne ma ma ne ko Mor Gueye ma ne ma ah, doomi dëkk bi nga sëtu dëkk bi nga daal di jug jox ma loxo dama sama am day jàmbaar la de lu ne def na ko ci dëkk bi ci lu baax te loola bu amul woon du ko mën a wax te nam ko mën a seedee yaakaar naa ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñëpp noonu lañ ko mën a seedee xëy na ñenn ñi dañ koy mën a wax ñenn ñi doo mën a àgg ñoom pour ñu mën la ko leeral waaye ndamal kër sëñ Fallu la te ndam la lool ndax kër sëñ Fallu gii kat jëf na jëf ju rafet yoo xam ne nii waxuma la ñëpp waxuma la Sëriñ Fallu waaye li commencé Sëriñ Moodu ba ci ñeboo mii liggéeyal na loo xam ne ku ci nekk wax dëgg yàlla bu ko ko yàlla fayoon rek ma doy waxuma laak lam jëbal sëñ Fallu kon sëñ Moor yàlla ko yàlla yërëm sàmm fa mu nekk daqal ko fi mu jugee sa njabootam bi yàlla te ñoom loxo muy góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di jégalu bu baax te sàkku ci ñi yéen ñaan ngeen ñaanal ñu bayit bu bu jamono yi jam lay jamono gën a dox rek ci kanam suñ góor suñ borom di ñu gën a dimbali ñu gën a jekk bis bi li ma ko waxee sëñ laay rek ak soxna Ndey Sylla pour ñu waaj ko waaye maa sëñ Fallu defal ñu goo xam ne ba màggal gi day ñëw sët ku ci nekk yow nag wala ku ci nekk nga ne man maay def lépp yàlla kat yaatu na lool nañ ko ko ñaan yàlla te yéen ñi nga xam ne yéen sunu suñu nijaay itam ngeen ñaanal ñu ba bu ñëwatee du ngeen làmb dara di ko ci def lépp sët yoo koy def ndax loolu boobaa ab sag lay doon kon yàlla sunu borom mi nga xam ne tëliwul dara ñoo ngi koy tàllal sunu loxo mu defal ñu too tawféex ak sangatatu daareeni ak xéewal gu yaatu lool ba lépp ku ci nekk li nga yéene suñu borom defal la barkeb Cheikh Mamadou Fadal Mbacké yéen nag sët yi maa ngi leen ñaanal yàlla dëgëral leen commencé ko sëñ Ahmad Ndiaye ak soxna yëpp ak soxna yi ci ginnaaw yëpp lépp loo yóotu ak fépp foo nekk lépp loo fay sàkku yalla na ko yàlla jàppandal ndax yàlla kat ku yaatu la te bis bii bisum ñaan la kon maa ngi leen ñaanal yàlla bu leen dara yàlla bu leen dara jafe lépp lu ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla jàppandal man de yéen naa yéen naa leen ko waat naa ci sëñ Tuubaa li ma leen yéene yéene ma ko sama bopp kon yàlla leen yàlla sàmm barke Cheikh Mamadou ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bi xam naa ni ko sëñ Modou Guèye gisee waxe léegi euh, jataay bi moom ci ñi war a baas ci baas bi laa bokk ci ñi war a baas ci baas bi laa bokk loolu tax sëñ Modou Guèye moo ma woo léegi rek wax ma ko ne ma dañ doon fàttaliku sa wayjur wa waaye dañ ko xawoon a woyofal lool ba toll ci kàddu gi nan tollu ñoo nañ la ko wax mu ne ko waaw loolu de moom wax dëgg yàlla yitt yi ma mën a fekk <coughs> bu dee yi ma mën a bàyyi yu may bàyyi laal doon ci lal di ñëw maa ngi koy wax borom taxi bi ma jël léegi ndax dama di song sama sama daamar mu mel ni nanguta liir caabi yi kele kele bi mu daal di woo taxi bi ànd ak moom ñëw maa ngi koy wax léegi ne ko fi ma jëm wallahi ca ca ca looloo li nekk ci man yow suñu ma duggee waxee fi sa sama xol sama xel dafa de sori lool ci sama baay daana toog ba ci yàgg mu ne murgee dee ma woo ma dem ci ñëw dem ci ñëw Baye Mor yi daana seet seet ne jaleñ ci kër gi ne ko mu seex ni loo may doyee waxtu wi looy wootee ay yoon yoon yow suñu wóor yi waxee moo tax ma ne ko amatuma ci sago wallaahi gan laa bàyyi ci kër ga wallaahi nabi gan laa bàyyi ci kër ga ak ak yitte yu ma waroon doxi yoo xam ne ginnaaw tuuti laa fa joxe woon kàddu nga xam ne bu gan nga demoon ca laa waroon ca laa waroon jëm waaye nag lii noonu rek la mën a deme noonu rek la mën a demee jamono la kenn xamul nu mu mel waaye day wëlëre yu fort wala yu wëlëre yu riche yu mat a sàmm ci jataay bii gis naa fi ñu bari ñoo xam ne ni may waxee ci Baye Mor Gueye noonu lañuy waxe waajur waajur yi benn la sunu waajur yi jataay yi bii yu bari ñoo xam ne sunu waajur yi benn lañu woon amoon tawféex it nag tawféex ju réy joo xam ne kuñ ko bokkalul woon ñoo la gañe kuñ ko bokkul woon ñoo la gañe sëñ Fallou daana leen wax na leen maam Cheikh Rafal maam Cheikh Isaa Jenn sëñ ma Sàmba Jóob sàmb sëñ ma Ndumbe ku ci mas a xëy da ngay xëy di dàkk bëggu sëriñ Tubaa di dàkk ko neex yéen na ngeen am xéewalu sëriñ Tubaa ne leen lii laa bëgg muy jumaa ji ngeen di ci xëyee ka wàcc ba mu sotti colet loolu xéewal la yéen di sëñ bee leen wax bëggu boppam ñeen den daan làmbatu yéen sëñ bee leen wax bëggu boppam daan ci technique lu ngeen bàyyee lekk leen bu leen ko jox kenn loolu nag day tawféex ju rëy rëy joo xam ne kooku bokkul woon rek bokkul ko sama waju daana wax ne yéen yéen yéen de am ngeen tawféex yéen doomi dongo yi am ngeen tawféex tawféex ji ngeen am moo dañ leen duggaale géew dañ leen duggaale géew yéen ndax ba ñuy liggéey liggéeyee yéen a ngi ci ñun suñ biir la ko daan waxee daal kon yéen dañ leen duggaale géew loolu nag day lu rëy loo xam ne lu jamono xat-xat dañ ko war a yëg dañ ko war a sàmm dañ ko war a aar dañ ko war a ñoŋal ndax mbokk yi valeurs yi mi ngi bëgg a réer yu am solo yi mi ngi bëgg a sànku ci yi ñu koy jëndee jëru ko ci yi ñu koy jëndee jëru ko nañ fonk wëllëre googu wëllëre googu moo gën a riche alal wëllëre googu moo gën a riche ay am-am. wëlëre woowu moo gën a riche dara gi yii ñuy xool ci suñ suñ jamono jii wëlëre yooyu moo ko gën a moo gën a am solo moo ko gën a riche buñ ko jëlee dara dañ ko sàmm nattuwaay yi xew ci jamono ji muy mbubb yu rafet kër yu rafet oto yu rafet ñun dañoo am lu ko gën ñun ñun loolu suñuy nattuwaay suñu diggante dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne ñun ñëpp ñu koy bàyyi xel waaye fàttalante la si ñun ñu xam ne sun suñu waajur yooyu ñu gën fuuf bu ñuy xool jamono yi nattuwaay yi ñu natt nag boo góorgóorlu li ñu xeeti li ñu li xoy xoy yi ñu ko tuddee barke wut danañ sànku de ndax suñu waajur amuñ ko woon ca lu mat a def def nañ ko def ko fa ko fa ko mat a def ca xoy xoy yi amuñ ko woon dafa am ay jamono mayor mayor oto di ko bëgg a soppi dem naa ba sax jubóog ki ma doon bëgg a soppil waaye tegandaaye ma mujj ma mel ne li ma li ma oto bi nar a jaral ma ne daal man daal góorewu ma sama baay dund na ba faatu amul oto ca moo ma gën junni yoon kon kon nan laay amee xërug bii ma yor mu man lépp ma nar a tegawaat sama bopp tegandaay yoo xam ne pour wut beneen bu ko gën kum ci doon ci ñun boo lambee sa poos mën nga cee génne ñaari téléphone yoo xam ne bi sa waajur yi toll na yow capital am bépp mënut a jënd téléphone yooyu ca lu mu war a def def na ko nañ xam ne ñooñu liggéeyal li ñuy liggéeyal dañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ñu jamono soppi buñ ñee kenn nii nag <coughs> bu ñee kenn bu ñee kenn xanaa ku dul ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ëppale ca loola wala kuñ jàpp ne moo ñu ëppale ca loola ndax jamono yii yii yii xew ci jamono yi mbokk yi di bëgg laa dévaloriser loo xam ne lu am valeur lu am solo ñu bëgg la caa nocci léegi ca wax ne ki lay tinkee sa kilifa ku ne dalaa bëgg yilif rek nit nit du dund moom dong de nit faw nga am kilifteef faw nga am kilifteef afaraayta man ittaxada ilaahu hawa dem ba sax moom la neex rek moo doon sa kilifa waaye faw nga am kilifa dañ ci bàyyi xel baax ñun yàlla dañoo defal tawféex na ñu am ay kilifa kon doon ci ñun waajuram mat na ko kilifa sëkk day wax ne bu fa waajuro jógee ka fa nekk nañ ko def kilifa dafa nekk nañ ko def kilifa ku deful sa kilifa kilifa def kilifa jàmbur kilifa kilifa la yilif nag bu la yilifee day noppale lool kon loolu lañu amoon ci tamhid bu gàtt ci wet googu ñëw ci lii ñuy def am solo gi am solo gi muy daje fàttaliku sunu wayjur wa ñaanal ko ku ne ci ñun mën na ko ku ne ci ñun ci nga dëkk sax yaakaar naa kenn ci ñun du julli mukk yaakaar naa ci ñaanalu leen yaakaar mu ko benn yoon yaakaar naa waxtu njël kenn doo am aajo jiital sa jiital sa bopp bàyyi leen yaakaar naa kenn du jàngu kaamil waaw di ko xadmu ca fàttalikoo sa waajur yooyu yaakaar naa ko lool yaakaar naa ne ajjuma diggante takkusaan ak timis waxtu nangu ñaan woowu doo ko romb mukk ca fàttalikoo say waajur yaakaar naa fu ñu toll ñu ngi ñaan waaye nag lii lii day am seneen solo amaana kenn ngi ci suñ biir koo xam ne góor la wala jigéen yàlla dellu ñaan mukk mbooloo mu ànd ñaan rek suñu borom nangu ko ca kan la ci moo tax dajeeg mbooloo mi ñaanandoo suñu borom tabaaraka taala dafa am solo lool wuute na ak lool kenn ku nekk toog fa nga toog di ñaan kon am na solo am na solo lool suñu wajur wa ku mu doon ci ñun dañ lay gaaral sa jëfi doom dañ la koy gaaral bàyyi moo de tey bu bu xoolee jataay bii xolam dana sedd njabootam gi bokk benn tànt dage ci benn barab di saafonte bu doonoon dañuy ñaanuñu defuñ dara di xoolante képp ba jot ba dem jot xolam dana sedd xam mu jara dugg daje gi képp képp képp képp lu rëy la buñ ko xeeb ak ya ci mën a juddoo amaana li ñuy jegee jegee ci mbokk bokk benn bàyyi amaana daa am na ñoo xam ne daaw la ñu gëj a gisee am na ñoo xam ne ay weer ngi ni gisewuñ loo ko bëgg-bëgg jamono tànk la nga xat xat ba xamoo loo def kon bis bii buñ ko buñ ko sàggane bis bii dagale dundal mbokk gi dox suñu diggante bu ñu ñëw indi njaboot gi ku nekk ci ñun sa njaboot ga nga am nga indi leen cañ xam ku nekk ci ñun lam doon ci sa morom lu am solo la ku nekk ci ñun lam doon ci sa morom dundal mbokk googu ci lay wax lu am solo la ndax jamono ji xat na xat goo xam ne boo tudd da am koo xam ne yéen a bokk benn bàyyi seeni doom xamantewuñ wuñ bokk benn bàyyi yéen ci seeni doom buñ dagee woon ci mbedd mi mën nañoo xeex mbokk yi mag ñi ëpp nañu chance de mag ñi menn penk leen daan am. seen njaboot gépp di xamante lu ñu man-man seen bopp kilifa ga moom la ñuy taaj añ baag reer ba ca këram ñëpp bokk benn ëtt di fa añee bokk benn ëtt di fa reere bu demee ba seen kër yi mun a ñàkk tàqale ko ay añ bu tabaski jotee ñooy bokk benn ëtt bu korite jotee ñooy bokk benn ëtt la ngeen yaakaar lu ñu ci jublu mooy na mbokk gi xamante ak mbokk dafa am lu koy dundal lu koy suuxat lu koy lu koy màggal ca la ca jiitu mooy xamante bis yu mel nii bu ndegee nañ fexe ba ñu xamante wu ñoon xamante buñ fi rek jàll moom laa wax ci lu mel ne tour de famille lu am solo la ci kaw buñ ko dundalee niñ ko war a dundalee da nga xam ne tour de famille bul ñëw dem yow ñi nga xam rek nga dem toog seen diggante dem ba ci diggante sëñ Modou Guèye sëñ Xayre Guèye ñoom nga miin nga daal toog seen diggante di waxtaan koo fi dolli ko doo fi dolli ko kenn nga xamoon da ngay xool ña nga xam ne xamoo ci kenn nga toog seen diggante bala nga faa jógee xam leen ñu xam la xam li nga bokk ñoom loolu mooy dundal ak mbokk moo ko tax a màgg kon dañu am responsabilité yu rëy mbokk yi ni nga xamee ne ñun ñii ñëpp xamante nañ te suñu liggéey de suñu liggéey waajur la suñu waajur bu ñu liggéey doon ci ñun lii du mën a am tey kon nag ñun am nañ responsabilité bu toll ni kii war liggéey suñu njaboot ngir ñu xamante ci mbokk yi njaboot gi xamante wuñ de mbokk yi mbokk njaboot yu baree bari xamante wuñ duñ dem leen duñ fekk leen kon occasion yu mel nii lañu am moo tax lu ci waay am ci xeeti xew yi bu ko xew wax ko sa mbokk yëpp ñu daje fa daje yañ fa daje dafa am solo lool ci dundal li nga xam ne moom mooy ak ak mbokk léegi léegi mooy àq juñ ñu amel suñu waajur àq joo xam ne du jeex mukk àqi waajur dafa rëy dafa màgg yàlla defal la tawféex ngay dund ak moom waaye amoo ci la nga bëgg ndax mënu ko dab da def la nga man rek cam rëy lool nag Abdullah ibn Abbas wala Abdullah ibn Omar kenn ci ñoom ñaar dafa am benn waay bu yan woon yaayam di wër kaaba gi boobu xeer yi tàng na bokkut ak ñii kaaba gi mel léegi muy wër kaaba gi ba tolloog Seydina Omar ne ko xanaa sama waajur yi da wàccee na ak moom jox naa ko àqam mu ne ko bu doonoon tey géej la nga sëpp ca ak puso la puso bay tooy képp amagoo ko ci moom jox àqam waajur waajur dafa rëy àq mbokk yi lii dafa bokk ci dabu dabu àq yi rëcc suñu waajur ku ne ci ñun mi ngi woon ngéej tey sa sa bàyyi toog ci sa wet ba nga man ba nga mën def la nga bëgg a def lan moo koy màndargaal mooy yu mel nii dundal ko dañuy dab dabaatal lañ bëggoon a def ci defuñ ko dañuy dab dabaatal rëcc rëcc yañ amoon amaana bis wax nañu yëkkati suñ kàddu tontu ko amaana bis am am def loo nañu lëm lenn ameewu ko nam ko bëggee amaana amaana amaana yii lañ ko mën a doon baatale yendu ci ab bis boo xam ne xam ne bis bi maanaam dara taxul lu may jàkkaarloog borom bi tabaaraka wa taala ñaanal suñu wayjur dolli ko yàlla dolli ko ak njëggal yàlla dolli ko yërmande loolu moom la ñuy dabaatale la nga xam ne moo wees suñu diggante moom loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ak ay kóllëreem ñu di ko ñu di ko sàmm bokk na ci dabu sa wajur bépp kóllëre bu mu amoon daan dundal diggante mu moom nga fexe koy rafetal léeg nga seet seen dem nemmi ko ko léeg-léeg nga jëflanteeg moom jëf-jëfi jëfi wajur loolu bokk na ci lu am solo àq ji moom moo rëy day wax ne ni ko borom bi tabaaraka wa taala waxee fi mu koy dugal ci ngay xamee dayab wajur waabudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana xoole fi mu ko placé yàlla li mu gën a bëgg mooy ku ko jaamu moo tax mu binduñu ñun ñëpp moom la ñu digal ne bindu ma nit ak jinne maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabuduni bindu ma nit ak jinne lu ñu jàmm mu ne kon jaamu leen yàlla la mu gën a bañ mooy bokkaale bokkaale moom du ko jéggale bokkaale du ko jéggale faaw dañ ko jég dañ nga cay suñu ko rek génn ca bàyyi ko mu doog laa jégal mu ne wala tushriku bi shay'a borom bi tam inna allaha laa yaxfiru ay yusraka bi wa yaxfiru maa doona daalika liman yashaa bàkkaar bu dul naa ko jégalee ba mu des bokkaal da ngay da ngay tuuba ndogal ko jégal am na bàkkaar yoo xam ne boo ko defee boo defee lu baax fàtte koo jégalu sax yàlla effacé ko ngir lu baax la nga def innal xasanaat yudhibna sayyi'aat moo tax yoon sama wax ne wa atbi'i sayyi'ata al xasanata tamhuha boo defee lu bon fexeel ba def lu baax ci ginnaaw bi ndax mu effacé lu bon la nga defoon waaye bàkkaar moom faaw da nga koy jégalu rek xool kon ni mu fonk ñaar yooyu mu teg ci wa bil waalidayni ihsaana seen ñaari waajur na ngeen leen fonk na ngeen rafetal jëm ci ñoom waxe waat ko feneen wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaa wa bil waalidayni ihsaana immaa yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wa laa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariimaa waxfid lahumaa janaaha ad-dulli mina ar-rahma wa qul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii saghiiraa mu waxaat léegi da ngeen di jaamu yàlla bu leen ko bokkaale ak dara waaye seeni i wajur na ngeen leen fonk na ngeen rafetal jëmee ci ñoom sa wajur nu mën a mel ak fu mën a doon àq la am ci yow joo ko war a fonke nit ku amoon aw wajur muy ab chrétien moom muy ab jullit sax xanaa xamoon ni dafa war di dox aw service lépp lu mu ko digal mu di ko def bu dee bu dul lu naqar yàlla waaye même wajur woowu bu ko yónni woon sàngara daa war a jëm jëndi sàngara yu du wajur woo ndax man dagan na ci moom mu naan ko diina jëm nekk dagan na ci moom mu naan ko buñ la ko bàyyi du ab jullit laa du ma jënd sàngara ko xanaa xamoon sa waajur boo taxawaloon julli taxawal julli naafila boo nee allahu akbar di kàbbat di julli bu dee sa yaay wooyee wala sa baay da war a dagg julli gi wuy ji ko wuy ji sa yaayee gën ci yow julli googu xanaa xamoon ne boo doon koor koor ngàtt nga sa baay soxla la ci ab liggéey boo xam ne mënu ko boole koor gi bàyyi koor gi liggéey li sa baay wala bàyyi koor gi liggéey li sa yaay moo gën ci yow koor ga xanaa xamoo ko waajur dafa wàcc waay bi moo rëy dara gi mu ne kon mu ne ku ci am xéewal dem ba ci sa baay màggat wala sa yaay màggat indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma kenn ci ñoom màggat wala ñoom ñaar ñëpp ñu màggat sa kanam am nga xéewal gu rëy yonent bi sa alayhi wasallam nee ku dund ak say waajur ba faatu ci amoo aljanna bay boo nga tëri doo ko am dund ak say waajur yàlla defal la tawféex ba ñu màgg sa kanam jéem ba noppi gañe woo ci sa àjjana jërul ngay tëri bay boo nga tëri looy defal nit ci teraanga waajur ci gën kon damay faral léeg-léeg gis njuumte yu rëy sa baay soxlawu ñeenti téeméer joxoo ko ko nga romb ko dem jël ñaari junni jox ko sëñ ba sëñ boo ko mën a jox jëriñu la dara doo jëriñ dara doo jëriñ dara sa bàyyi jox la sa soxla xaram tabaski mënut a am xaram tabaski wala mu yor xaramoo yooyu nga jënd ponkalum xar jëm judi sëñ ba da nga ko yàq rek sëñ ba nga ko yut bu xamoon ne noonu nga bàyyee sa bàyyi mu ne la dellul ci sa bàyyi sëñ Tuubaa ku ma sa ñëw ci moom ne ko damay jébbulu danaan la ndax ay say waajur da nga dund boo ne ko waaw mu ne da ngay takkoo kon da ngay siyaare ji di dellu ji waaye dina nga toog féete fi doo ko nangu mukk nga toog féete yoon sax nit daa ñëw ci moom ne ko dama bëgg ànd yow ci jihaad ji xeexali lislaam mu ne ko ana say waajur mu ne ko ma nga fa mu ne ko fa fiihima fa yow am nga loo jihaade demal sa waajur jihaad ji kon daraja ji moo rëy wàccuwaay bi moo rëy mbokk yi ñu war ci bàyyi xel baax a baax jamono gi danga xam ne doy waar da nga ko gis sa yaay dagg siis bee fauteuil bee nga toog fauteuil bee ca nga am foo mën a toog doomi sëñ diw ne sa feet nga daal di wàcc daal di wàcc suuf looy def loo ko doyee looy wàcc foo yow ki ngay wàccal maanaam sa yaay mi gën a jar a wàccal junni yoon sa baay mii gën a gën a wàccal junni yoon paras paras ak dàll ba jox sa baay loxo wala sukk sa taxaw sa kanam yaay ki dàll sëñ diw ñëw nga summi daal yee fële yaa ngi yàq xamoo li ngay def sëñ diw mat naa war maal mën naa màngal waaye benn bu mu am rek fukk a ngi sa wajur yi moo tax nit ki war cee bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi bàyyi xel gi ak war warmaal gi ak ak ak yëkkati gi ku am say wajur ñuy dund yitte joo mën a am ak lum rëy rëy rëy am nga chance bu rëy ci yitte ja faju am nga chance bu rëy ci yitte ja faju dangay faral di wax ne yow sa yow sa yaay toog ci kanam sa baay wala sa yaay yëkkati saw ñaar téeméer wala saw ñeen téeméer jox ko nekk ko li di addiye la mu ne xinnet bëtt yéen maa ndey xool la ko ngeen ko damaa amoon yitte joo xam ne damaa bëgg nga ñaanal ma ci fas la ngay fas wax ko yu tëje boo ko mënee boo ko wax ko yu tëje mu ñaan la ci ñun de duñ ko def ñun dañuy bàyyi suñu yaay ci kër gi bàyyi suñu baay ci kër gi waroon ko mën a joxuñ ñeent téeméer xolam sedd ñu dem jël ñaar fukki junni neexale ko weexale ko ab waay waaw ci naan ko xoolal ma rek taxawal ma sama mbir mu baax a baax moom kay ni ma la ci yaakaare ay waay romb nga nga fa muy fajoo romb nga fa muy fajoo ay boo sotaloon sa xolu waajur wa moo xam yaay wala baay fexe ba xolam sedd mën naa bay ñaan sëriñ bu ne xinnet xool la bët yërmande yooyu rek bu ñaanul sax mu baax xam nañ on ñun ñëpp xam nañ wala boo ñu bari xam nañ on on du nàmpal doomam on du nàmpal doomam on day day fari ba ñëw rek jàkkaarloo doom yi di ko xool ba mu suur baykat yi xam nañ wang wang xam nañ ko baykat yi gunóor bi ñuy wax wang gunóor bu ndaw la boo xam ne boo ko téyee sa baaraam du feeñ buy wang gerte day ñëw ba ci naaf bi wala ba ci call bi bépp bépp call boo fekk wan yi ci biir naanuñ gerte ga wax nga balaa naan gerte da koy won ginnaaw cinquante centimètres day day génn calli bi cinquante centimètres ba noppi won ko ginaaw di naan diw yàlla man loolu nag moo tax bu ne bu yë yi bu la xoolee bët yërmande ak ñeewantee rek kenn xamul lu muy doon ca fa muy àgg ci yërmande ak ñeewante nag jafe na ko fa àgg ak loo ko mën def boo na boo na nekk coono moom mu jégal la jamono yonent sax daa am ko ñu wax alqama bi mu tollee ci bëgg a faatu yonent bi yabal Bilaal ibn Rabaax ne ko ne demal ne Bilaal demal ne alxama sako mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax bu mujjee ci aw làmmiñam mu mën a dem aljanna Bilaal ibnu Rabaah ñëw daal di koy wax Alqama sago sago baat yi Alqama mënut a fexe ba wax baat yi Bilaal ñëw ci yoon so ne ko Alqama day wax naa ko wax baati seede yi waaye mënu koo wax mu ne ko ndax ay waajuram yi dund ñu ne ko bàyyam de faat na waaye yaayam mi ngi dund mu ne nañ ma ko wool yonent bi ñu wool ko yaayam mu ñëw mu ne ko sa doom ji nu def ak jaamu yàlla mu ne ko aka mën a julli aka mën a woor aka man a jàngal xon aka mën a yurut jeex mun ne ko sa digganteeg moom nag mu ne ko ah man de gërëmuma ko moom yaa ji ne ko man de gërëmuma ko yonent bi ne ko gërëmoo ko mu ne déet mu ne ko lu tax mu a ko dafa jël soxnaam teg ko sama kaw jël soxnaam teg ko sama kaw mu na ko jéggal ko yow koy yaa tax mënut a wax baati seere yi mënut a dem aljanna mun ne ko man fi ma jaar moom ah du ma ko jéggal nag li ma def yonent bi daal ne Bilaal demal matt ñu taxaan mat taal doom ji fii ci kanamam ginnaaw dañ koy taal rek mu na ko sama dogeeti xol ñu ne ko taal mun ne ko bu ñu ko taalut fii ci àdduna boo ko jéggalul dañ koy taal sawara rek mun ne boo ko jéggalul dañ koy taal mu ne ko ah man kon jéggal naa ko yonent bi daal ne bilaal demal xool ba xam jéggal naa ko ci àgg na ci xol bi wala déet bu àggee ci xol bi lamiñ doon na fecc ku mu mën a wax seede yi bu àggut ci xol bi nag lamiñ du mën a wax baati seede yi mukk bilaal jub néeg alqama bi dégg mu naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko dencee yonent bi da biñ biñ suulee ba noppi yonent bi dafa tiim bàmmeel bi mer ba xarkanam bi xonq mu ne giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxoom nekk bu ko neexoon ma faatu léegi ku ci jël ci ku ci jël ci yéen soxnaam teg ko ci kanam kaw waajuram faatu moo dox diggante ak sawara mbokk yi ñaata ngay dégg léegi ñu naan maire bi dafa naqaree dëkkal quoi naa wutal ndaw si appartement ñaata nga koy dégg ñaata nga koy dégg maire bi kañ la naqaree dëkkal kañ xanaa bi nga mënee dox xanaa bi nga rombee yàq sa yére mu koy defar xanaa xanaa xanaa mbokk yi kañ la maire bi naqaree dëkkal ba nga gis koo xam ne tey mën ngeen tàqale ko suba mën ngeen tàqale ko gannaaw suba nga jëndee ko sa yaay mi nga xam du ngeen tàqale bu mukk lii sama yaay la woon mu doo ko dégg ci àdduna sama soxna la woon nag mën koo dégg moo tax kenn du jël waajur di ko suufeel mbokk yi wala di ko wàccal moo tax yàlla ne falaa taqul lahuma uffin luñ la lëjël ci ay service bu leen jëppi bu ma bu bu amee mag bu màggatee rek yàlla li mu wax ilaa ardalil umr la wax li kay laa ya'lama min ba'di ilmin shay'an day dem ba àggale ci inversé dund ga wa man nu'ammirhu nan ko su fil xalq yàlla ne ku ma may gudd fan danaa inversé waat sa dund ga delloowaat la ci ndaw yaa ko daan moo la daan leel tey yaa koy leel moo la daan yëkkat tey yaa koy yëkkati moo la daan sang tey yaa koy sang lépp lu ma la daan defal bu bu màggatee na ko bëggee da nga àgg moom foofa foofa nag service na daana bari lool waaye bul ko jéppi bul wax ak moom waxi jéppi mukk uffin ca xam ne mënoo ko dab de am na waa joo xam dafa dafa ne woon baayam xanaa lépp lu ñu defal wajur la ko ah, wàcce na maa yow sa àq lépp loo yittewoo sa addu defal naa ko yóbbu naa la màkk jënal naa la oto defal naa la nanga boo xam bi ne ko des na am na lu des mu ne ko lu des mu ne ko ba guddi bu guddee naa la ko wax guddi jot ñu reer ba suur mu ne loo mu ko loo waxoon mu waxaat li mu mu ne ko ah ma wax li des mu ne ko waaw mu ne ko tëddal mu tëdd mu ne ko jaaxaanal mu jaaxaan mu ne yëkkat tànk bi bëgg a teg ci biir bi mu ne ko bàyyi da nga may rey ne ko ah daa nga def di daa daa rey ba suur ngay bañante sama biir bi waaw ne kon mënoo su koo fay ndax li fa fa mu jaar a tax moo tax yàlla wala taqulu ma uffin wala tanharhuma bul gëdd yaay maa ngi ñëw seetitit waaye pa maa ngi ñëw maa ngi ñëw déedéet bu ko wax sa wajur de sa kaddu bu mu yëkkati ko ci kaw sa wajur wala tanharhuma nga ne yàlla lan lay wax mu ne waqul lahuma qawlan karima foo toll di leen wax wax ju tedd wax ju tedd wax fit lahuma janaaha nee na sa darage lu mu rëy rëy sa alal lu bari bari sa xam-xam lu mu bari bari say wajur bu mu ko gis moom na ngay toroxlu ci seen kanam na ngay toroxlu sa kanam wajur ak sa darage ji loo mën am xam-xam boo mën a am judd boo mën a am alal joo mën a am wàccal toroxlul janaaxa dulli min arrahma boo defee li nga ma a def ba noppi nag bul ci yem de na nga leen di ñaanal waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yàlla yàlla yàlla nga yërëm sama wajur yi yàlla sama wajur bu dul woon bu dul woon ak ñoom du doon lii ma doon tey seen taxawaay dafa mat moo tax kon wajur dafa am solo mbokk yi ci rëy rëyaay lool kon nañ ko fonk nañ koy téye nañ koy sàmm ndax day day dundal ji dafa am solo lool teñ koy jàngal ndaw ñi nañ koy jàngal ndaw ñi na jigéen ñi xale bu jigéen daa yomb lool mu sol yàlla dallu yaayam mu jot ko toll waaj weccoog yaayam aw yére daa yomb lool ci moom bu ko defee rek boo góor góorgóorluwu dara rek dootu jox cër ji yaay bi bu ko defee bu góorgóorluwu dara dootu jox cër yaay ji rawatina jamono yi ñuy toll waaye ak góor ñi ñëpp rawatina ñu xam xaqi waajur